ak euh, Demba Thioune di journaliste analyste politique xam-xam màcc jëm ci wàllu politique alors euh, Demba euh, situation bi ni mu demee loi d'amnistie bi ñu doon soulever Guy Marius Sagna dégg nga leeral li mu ci andi ni Ousmane Sonko am na ko seeti woon pour daal di koy pour ko Macky Sall moo la yónni moo ñu yónni ngir waxtaan ak moom exile ko mu taafantaloo li nga xamante ne moom mooy feebar ngir ñu war ko yóbbu Maroc Ousmane son nag daal di bañ loolu Guy Marius Sagna wax démb mu mel ni dafay weddi loi d'amnistie bi nga xamante ni. ñu ngi ko doon jéem a soulever ak waxtaan bi euh, diggante Ousmane Sonko ak euh, président Macky Sall ban gis-gis nga ci am. waaw euh, d'abord merci li ma li ma mën mënul confirmer daal mooy. Mhm. négociation bi mais quand même mhm. loolu moom lu am la. Mhm. maintenant est-ce que gisee bi dafa am lu mu lal c'est-à-dire que gisee nañu am lu ñu nar a ñu naan il faut nga génn kaso. boo génnee karso da ngay génn réew mi parce que loolu mooy condition mhm. loolu su amee loolu mooy deal loolu su amee loolu mooy négociation parce que lépp loo gis muy waxtaan sooy négocier mhm. dafa am but boo bëgg maanaam li nga bëgg li nga li ngay wut ci ginnaaw li ngay négocier li ngay li ngay bëgg a am mhm. léegi euh, ki nga xamante ni mooy euh, di président Macky Sall bu mu reporté nii di euh, élection présidentielle bi dafa am lu mu wax mu ne maa ngi woote yéen ñëpp ngeen ñëw ak force vive de la nation ñu mhm. def lu ñu tuddee un dialogue boo xamante ni ñu xool lu ñu demee ci élection ci anam yoo xamante ni jàpp na ne moo gën. Mhm. alors ci loolu euh, démb gis naa ci compte présidence de la république du Sénégal. Mhm. Euh, ñu def benn vidéo bu quelques secondes indi ci ay nit c'est la première fois ma gis ci compte présidence de la république image Ousmane Sonko c'est la première fois. c'est la toute première fois. alors image boobu. mooy image bi nga xamante ni mooy bi Ousmane Sonko demee palais présidentiel Macky mhm. Sall di ko recevoir. ngay xam naa du ñàkk soxna dinañu tegal image boobu allez-y. Mhm. contre présidence de la république. Mhm. donc mu woon la ne am na communication bu ñuy def mu nekk communication politique une communication digitale. léegi li nga xamante ni moom mooy euh, gisee kii Ousmane Sonko ak Macky Sall c'est que xam nga suñ la waxee ne. Euh, gis na ko mais da koo wax ne soo génnee da ngay génn réew mi. Mhm. mais man bu fekkee dama xool jaar-jaar Ousmane Sonko ak position bi nga xamante mhm. wax ne loolu mën mënul am parce que par principe Ousmane Sonko gënoon na yomb ci moom. Mhm. mu demoon dialogue te bu demoon ci dialogue gëm naa ne du dem kaso. donc jamono jooju bu waxoon ne damay dem dialogue du dem kaso. mais également li ko dal tey bokkul élection ba ñu war a ñu reporter ko parce que en réalité loolu la. Mhm. exactement loolu du am. loolu mu waxoon lan ne pour ma dialoguer ak Macky Sall il faut nga nga def lii ñu lay wax. Mhm. mooy terme de référence yi il faut ñu xool ko lu ñuy waxtaanee. mais aussi sëriñ bi mënuñ dem jaloo dialogue ak yow moment boobu nga xamante ne ñu ngi dialogue yow yaa ngi jàpp au moins cinq cent nit ñoo xamante ñun lañ bokk. te ñenn ñi lu ñu def defuñu dara ñu wax seen xalaat. wala wax seen gis-gis wala seen position politique moo la mm-hmm. dérange ba yóbbu leen ci kaso bi mm-hmm. également nga teg ci li nga xamante ne ñu tuddee toutes les poursuites judiciaires li nga teg ci leader yeewu askan wi te nga bañ a sonal kenn ci affaire de toppaate ci kanamu yoon maintenant yooyu mu waxoon en en en juin wala période boobu ba léegi moo fi nekk c'est-à-dire ñu nekk kaso ñu tuddee leen ay détenus politiques ñooñu wàññeekoon danoo gën a bëri donc boo waxee ne condition yooyu mooy tax moo toog ak yow. Hmm. te ñooñu nga waxoon ne ñooy tax ñu génn moo tax ngay toog ak waa jooju mais ñooñu génn ñu ngi ci kaso bi donc exactement yow ces mêmes conditions vont rester les mêmes en deux mille vingt quatre. donc hmm. Ousmane Sonko mais de manière très logique et cohérente il est impensable. Hmm. que nangu génn kaso bàyyi fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo la fa fekk. ak ñu ko fa fekk parce que loolu ce serait la pire des trahisons de Ousmane Sonko et Ousmane Sonko aussi en prison après la prison am na beneen vie politique et s'il trahit les ñi nga xam ne ñoom la àndal ci wàllu wàllum politique mais su boobaa bu ñëwee dafay conséquence politique moo tax je crois pas à ce qu'on appelle exactement ce fameux deal qui puisse exister hmm. entre Ousmane Sonko et Macky Sall selon également que dafay génn euh, ñu génne ko réew mi mais loolu c'est ça c'est des manipulations loolu laa ko jàppee mais en réalité loolu mënul nekk. Mm-hmm. voilà loolu mënul nekk mais mais mais par exemple mais est-ce que loi d'amnistie mën na nekk exemple bu dafay am ban appréciation nga ci nga nga koy nga ci am. mais loi d'amnistie boo doon xool lu gën a bon ci àdduna bokk na ci loi d'amnistie xam nga amnistie muy teg. Mm-hmm. mooy mën nañ seede ne sax diw moo rey diw mais amnistie bu ñëwee day di day effacer loolu. Mm-hmm. gis nga moo tax ñaari président yu wax Abdoulaye Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade man dama la ne ils sont très mal placés pour pour nous parler de dialogue et de et d'amnistie mm-hmm. ñoom histoire bu gën a triste ci politique Sénégal ñoom ci ñoom ci seen jamono lañ ko fekkee en 1993 un juge constitutionnel qui s'appelle kii di comment il s'appelle encore maître Babacar Seye il a été assassiné lâchement par des individus également jamono jooju Abdou Diouf moo nekkoon président jamono jooju Abdoulaye Wade moo nekkoon opposition ñu jàpp Abdoulaye wat ñu jàpp si ay ñenn ñu nga xamante ni Abdoulaye Wade lañu bokkoon ñu tëj leen ba 2004. Mhm. ñu créé benn loi si bu tudd loi Ezzan ñu ne jamono 1993 ba 2004 ñooñu ñëpp dañuy effacer seen fay muy infraction criminelle ak infraction correctionnelle. ñu génne la ñoom ñëpp ci kaso bi donc maître Babacar Sèye li nga xamante ni ñëpp xam nañ dañ koo dóor bal mu dee ba tey ñi nga xam ne ñoo def ñu ne leen noo garaaw léegi ku dee moo perte loolu amnistie moo fa jaar amnistie bii bu ñëwaatee aussi loolu lay demee lu ñu ñàkk ci ay doomi aadama entre mars deux mille vingt et un ba tey ëpp na cinquante jeunes est-ce que dañu indi loi amnistie pour effacer mbir yooyu nga xamante ni kenn du xam kan moo rey diw diw nan la deewee ak li nga xamante moo fi yàq ci réew mi duñ xam kan mooy responsable bi mais naka ngay jàppee nit nga ne ko terroriste nga nga ne ko force spéciale nga nga ne ko commando nga nga tëj ko ci kaso bi pendant un an atteewoo ko dégluwoo ko nga créé benn loi amnistie nga ne ko seen bi génnal en réalité léegi sa garaaw mais léegi loolu saa c'est un manque de respect pour ces détenus même c'est un manque de respect pour ces sénégalais ñi nga xamante ni pendant un an yaa ngi leen di terroriser di leen wax ne ay terroristes ñu ci dëkk bi di leen wax nii fii am na ñoo xam ne ñu ngi yor ay kamikaze ñu yor ay fetel mais loolu boo ko defee di nga saaga l'intelligence des Sénégalais mais aussi di nga di di nga def ce qu'on appelle une impunité ku nekk mën na def lu ko neex mais dara lu ci fekk hmm. mooy ñi ñu wax ne ñun parce que loi si boo ko defee c'est une loi générale c'est pas une loi c'est pas une loi personnelle hmm. doo wax ne par exemple am amnistie bi Euh, dafa concerner seulement les gens de son Sonko déedéet doo wax amnistie aussi dafa concerner seulement l'opposition mm. l'amnistie est générale et impersonnelle c'est-à-dire c'est une loi globale période A période Z donc ñëpp ñi nga xamante ne def nañ fa njombe dañ koy yóbbaale ça veut dire même les fonds du Covid du yàgg ba ñu leeral ko pour ñu leeral ko si boobaa bu dee loi bi am na dañu def une nouvelle loi qui s'appelle la loi abrogeant l'amnistie et ça c' est l' assemblée nationale moo koy def beneen bu beneen assemblée bu ñëwee moo koy def. Mhm. mais aujourd'hui c' est comme pour dire le Sénégal on ne devrait même pas parler dans ce pays une amnistie les jeunes qui sont morts qui ont été tués dooleen ay bal ñu dee ñooñu danoo war a xam kenn moo leen rey ñi nga xamante ne dañoo dabb seen baaraam seen loxo danoo war a xam kan moo leen yónni kan mooy kan mooy kan mooy auteur bi kan mooy complice bi kan mooy commanditair bi ñëpp dañ ko war a xam mais amnistie quand même bu ñu ko defee mais su boobaa amatuñu réew ku nekk mën a def lu ko neex. Mhm. oui amnistie amnistie euh, ñu fàttali leen ci ci maanaam fee yi la ñuy amnistier en fait pas la personne de de de de Ousmane Sonko n'est-ce xam nga xam nga lu garaaw ci amnistie. Mm-hmm. amnistie par exemple pour nga bañ ko confondre ak grâce. Mm-hmm. amnistie ak grâce li ñu wutale. Mm-hmm. Euh, mooy ah grâce day fekk yow ñuy àtte la ba pare. mu dese la tuuti li nga tëdd kaso. borom réew mi. constitution jox ko prérogative mu ne ko yow mën nga jël ci ñii ñu àtte ba pare ci wàllu infraction yi nga defal leen ce qu'on appelle une remise de peine hmm. maanaam nga jëlee leen mais boo leen defee remise de peine remise boobu du rétrogradé c'est-à-dire que li nga jotu tëdd hmm. loolu casier judiciaire mënu effacer li nga jotu tëdd ci kaso bi hmm. mais bu dee amnistie amnistie du président moo koy def mais loi bu ñuy voté la ci assemblée national mais li koy wutale ak grâce mooy mbir yi nga xamante ni moom lañ lay toppee mbir yooyu moo du existé donc daan du fi am même buñ la daanoon daan boobu da koy effacé mm-hmm. donc les faits sont effacés d'office ils sont supprimés ils ne sont plus existants mm-hmm. kenn du ko waxtaanee du magistrat du fonctionnaire du avocat du yow journaliste bi du man mm-hmm. kenn sañu ko waxtaanee boo ko waxtaanee ci télé bi sax ki ñu ci tudd même bu doon moo ko def bu dee am na amnistie bu la porter plainte boo demee yoon doo mais loolu c'est extrêmement grave dans ce pays que des gens soient tués ñëpp gis ay deret du tuuru ñu ñuy rey ay nit mais mhm. deux ans plus tard ñu ne léegi kaay la ñu toog nañ def mhm. nañ nañ fàtte mbir yooyu léegi ñu leen rey kenn kenn kenn jarul ñu leen di ñu dem wuy ji yoor euh, ku leen sant ñu rey leen kenn jarul ñu wuyu ci ku leen di yóbbu kenn sant kenn kenn jarul également ñu ne leen kaay kaay ngeen assumer seen responsabilité mais loolu mooy ñàkk respecté ñàkk ormal bakkanu doomi aadama fexe ba dund tey si réew mi amul solo mooy ko ne ku nekk boo faloo rek mën nga crée sa perturbation si réew mi ay nit dee après nga créer sa loi amnistie après du mujj fenn loolu mooy loolu mooy amnistie c'est une loi d'impunité et d'indifférence mm-hmm. Mhm. dana waar dana waar euh, donc en fait te euh, et puis victimes yi ñoom ñoo si ñoo si ñàkk en fait bu si toutefois ñu yóbboon euh, mbir mi si assemblée nationale loi d'amnistie on on vous rappelle bi ñu faatee ki nga xamante ni mooy maître maître Babacar Seye ñi ñu ca tuumaale noonu dañ leen tegoon loxo mais après plus tard ñoom ñëpp dañ leen amnistier daal di leen di bàyyi donc même fay la ñu lay lay waat rek képp nga xamante ne da nga laale ci mbir mi ak lu mu dayo bi dayo crime lu mu munti dool yow da nga dañ lay boole ci loi bi. daal lay seetal ba nga seet wecc donc euh, kon ñi nga xamante ni ñoo si ñàkk seen bakkan ak ñi nga xamante ni ñoo ci amee ay laago ñoom ñëpp dañuy perte si fois euh, ñu egg foofu alors Demba xam naa nag euh, diñ fi ñuy buuree waxtaan bi rek mooy donc ban message ngay lancé sinon sénégalais yi sino sinon ñaari côté yëpp en fait. bu dee bu dee am na droit wax leen. Mm-hmm. ñu conseil wala mm-hmm. ma ma jox leen digal. Mm-hmm. mooy. kenn je bien ci réew mi. Mhm. warul nangu ñu am mu amal lu ñu tuddee loi d'amnistie ci réew mi pour principe waxuma la nga far wala waxuma la nga nga bañ a far même boo faree teggi sa far bi nga teg ko na la mhm. parce que amnistie lu muy teg lu muy tekki mooy du mbir mi amul mais mhm. mbir yooyu ñu ñu am ba ay nit dee loolu mooy nañu dindi mbir yooyu yëpp mais conséquences yi nit ñi dee nañ loolu garaaw donc c'est pour après day teg ci ne Mm-hmm. loolu ñi ko def. Mm-hmm. kenn du leen topp ci kanam yi. Mm-hmm. te yow mosoo gis balu fetal. muy naaw di naaw di dem ba dal ci nit te nit dóoru te dóoruñu ko. képp ku bal fetal laal c'est parce que dafa am ku ko tiire. waaw léegi ku ko tiire léegi comment on peut dire que kooku il n'est pas responsable de son acte. ku tiire kooku mooy autor bi ki ko sant kooku mooy commanditaire bi ku mu ko defal kooku mooy complice bi. donc ñooñu il faut ñu xam ñooñu ñetti ñooñu ñëpp lan mooy seen degré de responsabilité ci li am en mars deux mille vingt un li am également en juin deux mille vingt trois ak li am également barki démb ci février deux mille vingt quatre ba ñett doom Sénégal daal di faatu. Mhm. ñooñu ñun ñu ngi toog di waxtaan di def émission mais ñoom seen ñu taluñu ñu déglu sax ay site ñu ngi jooy ba léegi. Mhm. léegi ñooñu doo leen justice. Mhm. ñooñu xamoo ñu doon jëriñ seen waajur nga ne léegi dangay ngay amnistie hmm. mais boo respecté kenn ci seen waajur sax doo doon doo doo tudd ay loi d'amnistie hmm. moo tax Ousmane Sonko je considère que même bu ñu ko waxee Serigne ba dañ laa bëgg a amnistie man gëm naa ne dafay bañ hmm. parce que su nangoo c'est dafay nekk contraire ak lu loo les jeunes également parce que aussi boo nekkee ci combat il faut la trahison et je pense que aujourd'hui Ousmane Sonko n'osera pas Euh, appuyer plutôt une loi d'amnistie parce que euh, une loi d'amnistie quand même c'est c'est une oui. à toutes les dérives mm-hmm. lépp lu ñuy ñuy répression bavure policière dafay gën a yaatu mooy que ne man mën naa nekk takk dar di di def lu ma neex et après euh, su ma gaañee nit ki wala ma rey ko sax loolu sama yoon nekku ci parce que après dañuy amnistier mais mm-hmm. loolu c'est très grave maître Babacar Seye mais c'est un haut un fonctionnaire de l'État du Sénégal il a été assassiné mais aujourd'hui le plus grand perdant c'est lui et sa famille mhm. mais est-ce que loolu dafa war a continuer mhm. et je dis bien tous les Sénégalais doivent dire doivent non à cette loi bi nga xamante mooy la loi d'amnistie warul am ci réew mi mhm. donc le reste maintenant lépp lu àdduna rek lépp la ñuy waxtaanee àdduna lépp loo indi muy coow fu muy mujjee waxtaan la mais waxtaan dafay commencer ci dëgg dëgg mooy constitution mooy lu ñu boole ñun. Mhm. wax. d'accord soo bàyyee fii lu constitution bi wax na nga créer leneen mooy di nga di nga di nga ñëwaat parce que constitution moom moo ñu la tënk. Mhm. donc c'est comme ni ko yàlla waxee woon yàlla waxoon na ne yéen ñii samay euh, jaam ñi. bis mhm. boo leen bàyyi alxuraan ngeen bàyyi li leen yeneen bi di digle. di ngeen dem ba réer te tant que delluwaatu leen ci ci mhm. téere bi ak yeneen bi doo leen doo leen jóge ci réer mhm. loolu moo ñu dal ñun suñu république bi constitution bi la ñu bëgg a bàyyi teg ko na la di ko violer di topp lu leen neex di topp ay calcul politicien après mhm. am nga dem nañ dialogue mais boo respecté constitution coow am parce que constitution moo ne conseil moom moo nekk lu juge moom mooy wax élection lu muy demee mooy xool ba ñëpp respecté constitution bi conseil bi wax nga violé lu conseil bi wax nga bëgg a indi si bopp boo ko indee problème mooy am Mhm. léegi nag ñi ko xam ne ñoo indi problème bi nañ ko assumer ils sont face à une impasse ils n'ont pas le choix. c'est, c'est mhm. difficile mais c'est ça. d'accord merci beaucoup.